ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همنا الشيخ نوري لنا بهذا المعذر وتعطني بنصرة تأتي لنا بثبر اللهم اهد قلبي آه، الحمد لله رب العالمين ñi bëgg waxtaan nag tey ci fukki saxaaba yi nga xam ñoom la yonentu warlu ajana te bàyyi junj ko fii ci yaa abal qaasim ci bunt bi nga xam ne moo mujj ci laamiya bi mu mel ni bi abi bakarin summa bil adali bil mun fiqi fillaahi summa baadil basaali benn baytu boobu ci la bàyyi mbambastan xulafaul arbaa yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla yónnee daf ko dëgëralee ñeent Seydina Babacar Siddiq ku dëggu ku am alal ku tabe Seyd hmm? <laughs> Seydina Umar bin Xattaab ku dëggu ku am kattan ku yàlla xamal xëy bu Usmaan ibn Affaan ku dëggu ku bëri halal Seydina Ali ibn Abi Talib ku dëggu ku jàmbaar ku mën a xeex ku am doole saaba yooyu nag nga xam ne ñoo dar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne moo ca gën mooy abdullahi bun osman bun amir bun amri bun kaabin bun saadin bun taymi bun murata murata bun kaab bun luway al qurashi ataymi muy seydina babacar siddiq aboubacar kuriyam la waaye tuddam mooy abdullahi abu quhafata mooy kuriya baayam waaye baayam ni mu tudd mooy osman seydina babacar تغم موي عبد الله لقبم موي صديق ولا عتيق كنيام موي ابو بكر دانكو لقبالي صديق غير دغو جيم دغو دانكو لقبالي عتيق غير تارو جيم تارو هون اك جيتو جيم دان جيتو كي ديف لو باخ wala am na ñu wax ne Babacar yaayam dafa yara doom jum xam mu dee bi Babacar juddoo mu dal di jël Babacar indi ko ci kaaba gi na ko allahuma inna haata atiquka min al mawti fa hablu lii yàlla kii dee goreel nañ ko ci dee may ma ko Babacar dund ne loolu moo tax ñu tuddee ko atiq siddiq nag dëggal mu dëggal yonent bi moom baa fet te baarakan lool ca dëggal ga loolu tax na ñu ne ko siddiix keroog bi yonentu rañaanee dem baytul maqadis dem asamaani juróom-ñaar bim xëyee gaa yi ne ko ndax démb wax nga asamaan mu ne démb dee damaa demoon baytul mbaqadis ñu ne ko baytul maqadis ñun ñii takk suñ jawar xam weer soog a àgg faj suñ xaajo xam weer soog a ñëw ñii tëdd bayi la fi xeewu fekk la fi ngeen dem nga fa ñi wax Babacar na ko a ah, déggal sa waa ji wax nee na dem na baytul maqdis dégg démb Babacar ne moo ko wax ñu ne moo ko wax mu ne kon dëgg la ñu ne loolu tax na ñii ko laq bale si diir waaye alquran wax na ne wallazi jaa bi sidqi wa sadaqa bihi ulaayika mu muttaquun ñett rek ma fi nekk ki indi dëgg ak ki ko dëggal ak ki ko jox gannaaw ki indi dëgg mooy yonentu ki ko dëggal mooy Seydina Babacar ak képp ko dëggu ndëggum illaa lu ma jaraa ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla kon Babacar yonentu alquran ci boppam moo wax ne siddiix la yonentu tuddee na Babacar Sidiq moom tamit ni ko alquran tuddee dafa am yu bis yonentu sallallahu alayhi wa sallam dem ci jëbru Uhud moom ak Seydina Babacar Sidiq ak Seydina Umar ibn Khattab ak Seydina usman ibn Affan Uhud na rëng rëng rëng di baj yi yonentu jël tànkem dëgg ci Uhud na ko usbut Uhud fa innama alayka nabiyun wa siddiqun wa shahidaani mu ko dalal yow uhud ab yonentu moo nekk ci sa kaw ab dëgg laa ko woon ñaari way sayid ñaari way sayid ñi mooy Omar dafa sayid Osman ibnu Affan dafa sayid kon yonentu tuddee na Babacar Siddiq foofu noonu Babacar fu mu juddoo Makka ca fiili ci la yonentu juddoo bi yonentu juddoo ba xam ñaari xat ak juróom-benn weer ci la Babacar juddu yonentu magee na Seydina Babacar ñaari xat ak juróom-benn weer nekkoon koo xam ne ku rafet ku xem jëmmu eh, jëmbam dafa xem duut fu rafet lool dëggu lool amoon wasak lool doon liggéey ci wàllu njaay jënd bi mu demee ba nekk mag bi jaawam bi daan na ko fuddan daan na ci def kattan hitam mooy boo ko defee ci kawar day mel ni xol bi xoyef lool mu am yërmande lool ci jaam yàlla yi Seydina Babacar Siddiq ay ngëneelam amul benn góor bu làq ngëneel yu day nii ngëneel li Seydina Babacar sidiq radiyallahu anhu gannaaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci xeet ku dul yónnent yi Seydina Babacar moo la gën eh, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu mu ne ci jamono yónnent daan nañ toog naan diw diw moo gën diw moo gën ñi daan wax ne Babacar moo gën Omar moo topp Ousmane moo topp Ibn Affan Ali moo topp Abi Darda radiyallahu anhu na ne toog nañ ci yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam Babacar du jublu si mu ngi wagu nag bu ay góomam di feeñ mu ne ah seen xàndandoor bii de ah am na njàqare am na naqar daal te fekk booba dafa am lu doxoon lu doxoon digganteem ak Seydina Omar ibnu Xattaab radiyallahu anhu mu dem ci Seydina Omar na ko jéggal ma Omar na ko jéggalu ma ko Babacar na ko jéggal ma Omar nag ñëw ci yonent di ko ko wax pour yonentu balul ko yàlla yonentu na ko yaxfirullahu laka ya ababakarin wax ko ko ñetti na ko baabakar yàlla jéggal na la baabakar yàlla jéggal na la ba ñetti yoon xomar li ko baabakar merloo tuubloo tuubal ko mu bañ mu rëcc loolu ah, mu dal ñëw kër baabakar moom omar ne ana seydna baabakar ndax mu fi ñu ko déedéet mu dal di ñëw fekk Babacar ci yonantu yonantu kilmaay baa ngi soppeeku maanaam mar na ba kilmaay baa ngi soppeeku Babacar moom mi ngi jàkk ba boof ci ay xóomam na ko yow Babacar na ko yonantu maa ko tooñ de maa ko tooñ de ba ñaari yoon yonantu ne inna allaha baasani ilaykum fa qultum kasabta yàlla def ma yónni ci yéen ngeen damay fen Babacar na ko wax nga dëgg wax nga dëgg waaye maa ko tooñ yonentu ne antum taarikoo lii saayi bii ndax du ngeen ma bàyyee sama àndandoor bii ba ñetti yoon bu ko kenn loorati gannaaw tey ndax yéen ñëpp moo leen jiitu ci gëm yàlla bi ma ñëpp weddee moo ma gëm ànd ak man ah euh, Babacar nag Sidiq radiyallahu anhu yonentu euh, seedeel na ko ak dëggu googu de yàlla may na ko keroog bi yonentu gàddaay yàgg naa waaj pour gàddaay moom Babacar de yonentu na ko mujjal ba yonentu junj ko na ko su gàddaay maa yow ñooy ànd mu jënd ñaari gilam yafal leen bañ xoos benn bis nag waa Quraysin dajee ca Daaru Nadwa may seen kër gi nga xam ne lépp lu daan fexe ci ay fexe yu bon foofa lañ koy defee ñi dajee ñi ne Muhammad daal nañ ko rey ñii ne nañ ko takk ci gilam mu daw ak moom ñii ne nañ ko tëj ci néeg ba mu dee ñii ne nañ ko rey ñii d'accord ne nañ tànn ay waxambaane ci gid gu nekk ñi yongaan ko buñ toogee ba guddi ñi rey ko su boobaa waa bani haasim duñ man dara lu may laaj bi diya diya muhammad du dara ci ñu ah loolu lañ taxee jibril dal di ko ñëwal ne ko sa borom ne na nga gàddaay tey yaag Babacar yéen a ànd bul fanaan màkk tey yonentu nag bis bu nekk daan na ñëw kër Seydina Babacar Siddiq radiyallahu anhu waaye marax waxtu wu ñëwee si fa ñun tijaan yi la fa daan ñëw waaye tey nag njolloor dafa ñëw bi mu ñëwee ci njolloor bi ko gaa yi seenee ñii ñëw ñu ne ko ah Babacar Mouhamad a ngi ñëw de mu ne leen ah mbit la bi mu yonentu ñëwee babakar nako ko na la sama ndey ak sama bay yaram daf koy waxé lolu indi lan la mu ne ko gennel ñi fi nek babakar nako genné huma kenn ñi fa nek sa ñooñ lañ ay sa mu fa soxnam la asmaaw soxna talibem la sahabam la yene yenent nako digel nañ ma maga day ta ma yow ñoy hand babakar nako ko xadu xoon naa ci ñaari gilam jëlal ben ma jël ben yenentu nako dana ko jël wa ci ndiek la koy jël ndax bëgg na gaday bi dal mat ñi daldi len wajal defal len ñaari mbuus bi mbuus ñi def ci tandarma bi mbuus ñi def ci yap xamu sax luñu ko takkee ndeysaan asmaaw bint abib ababak sadiq mo xoti ndakam ga ga fell ñi takkee ko mbuus ga gaa fell ñi takkee ko mbuus lolu motax ñu tuddé ko saatu ni ñi wajal len ñi dem bañ toogee ba guddi mu ne ko fanaanal ci sama nekk suñ la reyee maa la warul ajana ah lii diwa ma ko dénk diwa dénk waa Makka luñ bon bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon seen amiin ku doon dénkaane alal ku nekk rek moom nga koy dénk biñ demee ba ñi jëm jog jëm ci xaaru hiraayin xaaru hiraayin bañ ne moom du ñemee yonentu dem foofu xéeféer yi fekk ko fa di ko ci loo ko fa loree yàlla doo ko ci mbugal jëbalu sawri ne ko iléya iléya iléya aha mu dem jëbalu sawri ñu ngi fa fekk benn xunt moo xam ne xunt ma tilim na lool Babacar na ko yonentu xaaral Babacar dugg ci gën a le laay wax rek Babacar dugg ci xunt mi Babacar yàgg naa jaay alalam ngir yonentu yàgg naa jaay bakkanam ngir yonentu dugg ci xunt mi seetal ko ba set ñaari mbubb la bu mu féetoo kaw la xotti di ko sakkee pax mi pax yi ci biir xunt mi ba mu des benn pax mu sakkee ko tànkam bi na ko yenentu dugal jaan sax mat na ko foofale loolu Babacar def na ko yàlla ñu wax na ne saani yes nay ni isuma fil xeeri is yaqul li saahibihi laa tahzanin allaha maanaa ña kon yàlla ak yenentu Babacar ak yàlla Babacar ak yenentu ñoo ne ci xunt ma ñoom ñaar kon Babacar yàlla may na ko ak sahabaam moom rek moom lay alquran yaxal ak sahabaam Seydina Babacar Siddiq radiyallahu anhu ah, bi nekkee foofule ku jaaxle woon ci mbiram xéeféer yi mu ne xéeféer kenn ci ñoom bu xooloon ci tànkam rek gis leen waaye gis nga bi duggee ci xuntuma yàlla dafa xebal benn garab bu ñu wax umu xaylaan umu xaylaan daal soo ko doon wax fii ci wolof yi da nga naan garab gu mel ni salandombo wala gu mel ni kabandombo wala bu mel ni e, tol ni mooy kàmbaaree noonu noonu la kàmbaaree xuntuma mu xebal fa pittax mu neen fa ba bóof mu xebal fa jorgañ mu mu mu lind fa lind wu ñuul kuk ci diit bu gàtt gàtt bi gaa yi ñëwee ba agsi foofu ñu topp tànk bi ñu ne a ah, fii de lañ ko mujjee gisee Umayyata ibnu Xalaf na leen xanaa gis leen lindi gi xanaa lind jorgañ bi nekk fii moo njëkk judd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk ahmad ñoom dañ ci daan wax ahmad waye loolu wattu yàlla la fa sidqu fil qaari wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluuna ma bil qaari min arami kon bon aji dëggu ji ak dëgg laa koon bi ñëpp nga ci xunt kon gis nga bi Babacar jàqee lool yónnentu na ko Ababakarin maa sannuka bis nay ni allahu salisuhuma Babacar loo njortu nag ci ñaar ñoo xam ne yàlla moo leen ñetteel kalambu ci rek lañ ci war a yaakaar kon Babacar yàlla may na ko mu ànd ak yonentu sallallahu alayhi wa bi àndee léeg-léeg Babacar dox ci kanam yonentu léeg-léeg Babacar dox ci gannaaw yonentu léeg-léeg Babacar dox ci ndeyjooru yonentu léegi léeg Babacar dox ci càmmo yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujj gi yonent na ko waaw yaa Babakarin maa laka tamshi saatan bayna yadaya wa saatan xalfi Babacar loogi yow léeg-léeg nga dox ci sama kanam léeg-léeg nga dox ci sama gannaaw Babacar na ko yaa rasulallahi askuru talaba fa amshi xalfaka suba askuru rashada fa amshi bayna yadayka léeg-léeg damay fàttaliku ne mën na am ku ji dab ndax Babacar waa Makka wax nañ ne ku indi bakkan na Babacar mu dund mu dee ñi jox la téeméeri gilam ku indi bakkan na bu ñu mu dund mu dee ñi jox la téeméeri gilam mu ne su ma fàttalikoo ne dañ ñi dab ma dem ci gannaaw pour luy ñëw man dal ci man su ma fàttalikoo ne am na ku ñu mën a waafu ñëw laal ñi ma dem ca kanam bu ko defee bu lu xew rek dal di dal ci sama kaw yonent na ko yaa Babacar لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني دعك بقى بدر قبة مواتي سكوا من من ممتي منك واو واو ولسي بعثك بالحق ما كانت لتكون من مليمة إلا أن تكون بي دونك مخو خو بخو لما بقى رك ما يمواتي شو ما سمعت يا من بابك من كذا ما ده يا بوده هي كذي بحالكوا كون بابك يا جنا جاي بكنام ما تفسرنا وبنى مقتبر دي الله هنو dafa am jamono gars yi di di di ko neer di ko leerale ak Babacar ñi ne Omar moo gën ñi ne Babacar moo gën Omar na leen Omar na leen wallahi la laylatun min abi bakarin xayrun min ali omar wala yawmun min abi bakarin xayrun min ali omar mu ne leen Babacar am na genn guddi goo xam ne moo gën Omar ak ñoñom mooy guddi googu ñu nekkoon ci xuntuma mu ne leen Babacar xam na bëccëg boo xam ne moo gën Omar ak ñoñom mooy bëccëg boobu nga xam ne ñi ngee rañaan kon Babacar gis ngeen nim jaayee boppam nim jaayee alal bakkanam ngir yonent bi mucci sallallahu alayhi wa sallam alalam ju nekk jox na ko Babacar moo mooy njëkkee nekk xalifa yonent bi sallallahu alayhi te yonent digal nañi ñun mboolam jullit ñi ngiroo roy ci Seydina Babacar Siddiq ndax wax na ne aleykum bi sunnati wa sunnatul xulafaa'i raashidiin na min baadi addu alayha bi nawaajisi mu ne tëqoo leen sama sunna ak sunnaay sama xulafaawu ñi nga xam ne jub na di jubal ñeneen na ngeen ko matt ak seeni déggéej ba mu dëgër këng kon xulafaaw arbaati Babacar Siddiq moo ci njëkk kon yonentu digal nañu ñi roy ci moom jullit ñi nag daan nañ ko wax xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak xilaafaam nag loolu moom yónnantu moo ko digal moo ko digle yónnantu ci feebaram bi mu génnee àddina ya waxtu julli jot daa ko manta dem feebar bi metti na lool bilaal ñëw na ko waxtu bi jot na yónnantu ne mu ruu a Babacar yi fan yu salli digal leen Babacar mu jiite nit ñi ah bi mu waxee loolu nag nda yaa ngi sax doomi Seydina Babacar la mu ne ko ah yonentu inna ababakarin rajulun asifun in yaqum maqaamaka yabki fala yaqdiru ala qidaati mu ne ko Babacar góor la goo xam ne xol bi dafa sew dafa yomba jooy bi jàng alquran bu taxawee ci sa taxawaay bii bu taxawee ci minbar ba dana jooy ba kenn du xam li moo jàng la la du mën a jàng yonentu ne ma ne muru fa fal yusalli digeel leen kër mu jiite nda yaa ngi sa na ko inna ababakarin rajulun asifun in yaqum maqamaka yabki fala yaqdiru ala qiraati yonentu wax ko ñent ñaar yoon ñet yoon ba ñent yoon yonentu ne ko wa waay innakuna sawahibu yusufa Yen jigen ñi Yen yen andandor yusufa da ngeen bari bëri pexe rek way digel len babakar mu julli babakar jité da kon babakar. nek na ilimani julli ñi fek yonentu mi ngi dundu motax sayyidna seydna omar ibn anhu daana wax ne afala narda li dunyana man radiyahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li diininaa mu ne ndax biñ gërëm ci suñu àddina ki nga xam ne yonentu gërëm na ko ci suñu diina ah aha kay yonentu sallallahu alayhi feebar bi nga xam ne ci la génne àddina wax na day Aysa na ko udui lii ababakarin wa aqaaka hatta aktuba kitaaban mu ne ko oowal ba Babacar ak sa mbokk mi ma bind eh, dama ragal ma génn àddina kenn ku nekk di mébét naan man lii lii lii maa ci gën a xëy maa ci gën a xëy loolu moo tax yonentu bind dénkaane mbiram Babacar yonentu sallallahu alayhi wasallam jim fonkoon Babacar eh, ñëpp gis nañ ko waxaana moom yonentu ne iqtadu bi la seyni min baadi abi bakari wa roy leen ci ñaar sama gannaaw aboubacar ak kon loolu tam royloo na jullit ñëpp ci Aboubacar Aboubacar nekk na mufti ci jamono yonentu sallallahu alayhi wa sallam ndax njëkk hajjutul widaa yonentu na ko mu dem hajji booba drapeau bi ci loxoom la nekke moom Seydina Babacar Sadiq radiyallahu anhu cekki rek yow mu naxari la yónnee mbooloo mi ñuy wër mu ne leen laa yahujju ba'da aami mushrikun wala yatuufu bil bayti aryaanun mu ne leen gannaaw ren xéeféer kuy bokkaale ak yàlla du xajati néeg bi gannaaw ren kenn du wërati kaaba gi def yaramu neen loolu Seydina Babacar def na ko fatwu fatwa eh, njakki xajjutul widaa Seydina Babacar Sadiq radiyallahu anhu eh, am na bis yónnentu di laaj xalal gis nga sëriñ danay dimbale taalibe ci laaj ko yónnentu doon laaj xalal Omar ne Seydina Babacar Siddiq de mosuma jiitu ante moom lu may jiitu nu ma waaye tey jii moom maa ko de Omar dem kelam kitam jël halalam genn wàll ga la jël bàyyi fa genn wàll ga bi mu ñëwee jox ko yonent yonent nako ma maa ab xayta li ahlika lo fa desal sa njaboot mu ne ko mislahu Babacar ñew indi halalam lepp jor yonent nako ma maa ab xayta li ahlika mu ne ab xaytu lahumu wa rasulahu da bàyyee naa leen yàlla ak yonentu Omar na ah jiitu anteeg Babacar moom jeexal naa ko dootuma ko defati gannaaw tey loolu ci ngeen li Seydina Babacar Siddiq la bokk na ci ngeen li Seydina Babacar Siddiq radiyallahu anhu moom la yonentu gën bëgg ci nit ñi Amru ibn Asi radiyallahu anhu mu ne dañoo laaj yonentu na ko ayu naasi ahabu ilayka yow nit ñi ko ci gën a bëgg yonentu ne Aïcha laa gën a bëgg ñu ko mina rijaali mu ne abuha ñu ne ko ko gën a bëgg ci góor yi nag mu ne bàyyi Aysa kon yenentu sallallahu alayhi wa sallam feeñal na fii ne moom ku bëgg Babacar la loolu ngëneel la bokk na ci ngëneeli Seydina Babacar Siddiq radiyallahu anhu ya yenentu jàpp na ko muy mbokkam jëlee nañ ci hadis abi Saïd al-Xudri radiyallahu anhu yenentu di xutba nit ñi ne inna allaha xayara abdan bayna dunya wa bayna ma indahu faxtaara salika al abdu maa indallaahi mu ne yàlla de dafa tànnaloo ja benn jaam ci jaamam yi dafa ko tànnaloo àddina ak àllaaxira waaye jaam ba tànn la nekk fa yàlla xam nga loolu la wax waaye nag waxut jaam bii la waxut jaam baa saaba yi ñoom ñu ngi déglu di jàng ci loolu baabu moom di jooy di jooy gars yi ah, waaye góor gi la bëri man man waaye ah, jaam bu yàlla tànnaloo àddina ak la ci yàlla moom mu tànn la ci yàlla loolu lu ci Babacar di jooy ndeke ay ndeke yonentu bi mu waxee loolu boppam lay tàggee waaw ah, gon baba xamal na li may xamal saaba yi mooy na ah léegi kat yàlla tànnaloon na ma àddina ak dem ci moom la ma tànn nag mooy dem ci moom booba la Babacar xam ne yàlla yonentu mii kat léegi mu ngi aw yoru dee yonentu wax na ne walaw kuntum mutaqisan qalilan xayra rabbi la taqastu ababakarin su fekkoon ne danaa jàpp xarit kurut yàlla li ko ma jàpp Aboubacar muy sama xarit waaye li des léegi mooy mbokku ci lislaam ak bëggante ci lislaam mbokkoo naa ko ci lislaam bëgg naa ko ci bis yonentu ba tey si ngeen Seydina Babacar Siddiq de yonentu ne buntu yoon ci jàkk ji yépp tëj leen ko fàtt leen bunt yépp ba mu des bunta Babacar Siddiq loolu ngeen la bokk na si ngeen Seydina Babacar yàlla ci boppam moo ko sellal ndax alquran nee na wa sa yujannabuha latqa allasi yuuti maalahu yatasakke wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujise illa ibtiqaa wajhi rabbihi laa de wala sawfa yarde kon kooku yàlla sellal na ko seydina babacar siddiq radiyallahu anhu bokk na ci saabiqiina la waliina yi wala sax moom mooy awlu saabiqiina te xam ngeen alquran nee na na la wasaabiquuna lawaluuna min almuhaajirina wal ansaari ñi nga xam ne dañoo jiitu ci muhaajirina yi ak lansaar yi ak ñi leen topp ci ak rafetal yàlla gëdëm na leen gëdëm nañ yàlla ñëw tamit yàlla xadul na leen ajjana joo xam ne mu ngee daw ci euh, roonam ñeenti yolde de ndox bu sàggara bu lem bu soow ñi bil ci abadan yàlla ne loolu mooy texe gu màgg te Babacar ci la bokk kon loolu ngëneel bi yonentu sallallahu alayhi wa sallam ku gërëm Babacar la ah bokk na ci ngëneel li Babacar bunti àjjana yépp xool nañ ci Babacar mu xëyu yonentu dafa wax ne man anfaqa zawjayni min shay'in min al asiyaay fi sabilillahi du'iya min abwaabil jannati mu ne ku dundal ñaari way dencante bu xeboo de nit góor ak jigéen moo moo xam nit la moo xam mus la moo xam ay ganaar la dundal nga rek yonentu nee na dañ la ci àjjina ci bunt àjjina ci bunte bunte dundale ne yaa abdallahi haasa xayrun lii di yiw woo defoon la mu ne kuraan julli danañ ko xoo ci bunte julli kuraan jihaad danañ ko xoo ci bunte jihaad kuraan saraxe danañ ko xoo ci bunte saraxe kuraan xoor danañ ko xoor ci bunte xoor muy rayaan muy rayaan Babacar ne ndax dañu xoo kenn ci bunt yool yëpp mu ne ko yonent na ko waaw waaw wa arju an takuna minhum yaa ababakar yow yaakaar naa ne ña xoo ci ñeenti bu ci juróomi buntu yool yëpp ñi ñoo xoo ci mbooram bunti àjjana yow Babacar yaakaar naa ne ci nga bokk yàlla nañ ci la boole bokk na ci si Seydina Babacar Siddiq radiyallahu anhu dafa am bis mu boolee ay jikko yoo xam ne ci benn bis yonentu nee na kudut euh, nit ak àjjana du ko boole. dafa am bis yonentu toog ak saaba yi na leen na leen man asbaha minkumul yawma saayiman tey ku xëyee xoor ci yéen Babacar ne ma dee xoor la xëyee naa xoor damaa xoor mu ne fa man tabia ma yawma janaasatan ana kenn tey moo xëy ci yéen dem dëj Babacar ne ma de xëy deen xëy naa tey dem dëj mu ne fa man adaama minkumul yawma miskinan ana kenn moo lexal miskin tey ci yéen Babacar ne ah ma ne tey lexal naa miskin mu ne fa man aada minkumul yawma ana kante mo xey ci yeen seeti ku febar babakar nako ko man yenent nako majtama anna imri'in ila daqal janata ñent yoyu duñ dajee ci nit ci benn bis lu me dina dug àjjana xëy nga xëyee hor dem dej lehal miskin seti ku febar ci benn bis yenent neena lolu loolu kum dajee ci yow ci benn bis rek da nga dem àjjana te babakar yenent yaxalal xalal nako lolu ko bokk na ci ngeneen li babakar ngeneen li nga xam ne moom la joxoon xadijatu daan ko ko melalee xadijatu léppam jox na ko yonantu ndax xadijatu keroog bi ko yonantu di takk moo ëpp xalal ci màkka waaye ki keroog bi ko yonantu takkee moo gën a ñàkk ci màkka ndax lépp lu ma am jox na ko yonantu waaye yonantu delloo ko lépp na ko liggéeyal Babacar it noonu Babacar alalam fukk yonantu soxlaa rek moom amatu ci soxla Babacar ah, bëggoon naa gàddaay bi ñu leen di final ba benn bis sax de waaj na bay dem bi mu demee ba ci yoon mu dajeeg ibnu naa kooku nag mu ne ko ay na turiidu yaa Babacar Babacar foo jëm Babacar na ko axrajani qawmi fa ana uridu an usiha fil ardi fa abuda rabbi man de sama nit ñi ñoo ma génnee ma bëgg nag dem ci suuf si seet fu ma jaamoo ji yàlla ndax suuf si na mu ne ko déerét inna mislaka laa yaxruju wala yuxraju yow ku mel ni yow du génn duñ ko génnee yow da ngay fàggu lu ñàkk lu amul ci yow nga fa ci dëkk bi nga fàggu maam ngay jokk bokk jafe-jafe yëpp ngay ko xenu di berndeel ay gen de dimbale nit ñi ci ci fànn gu nekk nañ dem maa la garante nga jàmm sa borom ni nga bëggee waa yow kenn du la génnee ci dëkk bi ah ñaxaan di ñëw ah, yi mu du xanaa daal di xoo eh, di ji ngem yi nekk ci ku kéeféer yi mooy se mooy tedd xéeféer yi mooy borom alal yi borom dara ya mooy leen Babacar ku mel ni Babacar du génn duñ ko génnee ki wartu génn ndax da ngeen di génne koo xam ne dafay lu ñàkk ci dëkk bi mu fàgg ko te gis ngeen baa gis bind na mu ne góor du takk géño góor mooy koo xam ne lu amul ci kër nga fexe mu am fa lu amul ci dëkk nga fexe mu am fa amul ci réew nga fexe mu am fa loolu mooy góor Babacar nag lu amul ci réew mi dëkk bi mu ngi ko fay indi Babacar ku jokk bokk la jafe-jafe bu nekk mën na koy xenal ku mën a berndeel gan la aha kooku kenn du ko génne gars yi ne waa baax na kon euh, nangu nañ nga garante ko waaye nag na jaamu yàlla ca këram na jaamu boromam ca këram na jullee këtam lu ko neex na jàng këtam lu ko neex waaye du mu ñu loor ci ay jàngam bu mu ñu loor ci ay jullim te bu ko feeñal ndax su ko feeñalee dañoo ragal suñ doom yi ak suñ jabar yi topp door ko ci loolu ñu daldi di ko garanté ci loolu nag mu ne ko nag xamal sa kët jaamul sa borom ah Babacar mu jigi mu def ba ca kanam Babacar tabax jàkk ci këram ca mag bi mu tabaxee jàkk ci këram di jàng buy jàng xale yi da yundu si jigéen ñi da ko yundu si waaw Babacar di jàng di jooy ñiy dégg alquran alquran moom xam nga ku ko dégg te xam lu may wax rek mu jeexital ci sa xol bi dara léegi nag gaa yi gis daal Babacar ni ko gone yi da yundijee ak ni ko xale yi da euh, jigéen ñi da yundijee ñu ne kii bu yàggee mun naa jël suñ xale yi mun naa jël suñ jabar yi ñi dem ci waa ji na ko ah yaa garantoon Babacar nag la ko waxoon mooy na jaamu boromam ci këram. na jullee ci këram na jàngee alquran ci këram léegi tabax na fa jàkk ah waa ji ñëw na ko Babacar ah jéggi ngee nag fi ma la xam lool te nag man gàccee la ci man ma jox la kóllëre garanta la arab yi di dégg ne firi naa kóllëre ga léegi xemal ci li nga xemoon soo ci man mënti xem yow nga delloo mu sama kóllëre ga Babacar na ko inni aruddu ilayka jiwaaraka wa arda bi jiwaari laay sa kóllëre gi ma ko gi ma mayoon bëggatuma sa garant doyloo naa yàlla ak yonentum loolu eh, ci ngeneel yi Seydina Babacar Siddiq radiyallahu anhu booba métti na lool eh, Seydina Babacar Siddiq radiyallahu anhu tiraanga bu nekk rek defal na ko yonent dafa bis am kii laaj Seydina Ali yéena ko ayu naasi xayrun ba'da rasulillahi ku gën ci nit ñi gannaaw yonent yàlla Ali yéena ko Abubakarin mu ne ko suma man mu ne ko suma ma warum lu xatab waa ji mu ne ma ragal wax wax Ousmane naa Affan ma ne ko yow xanaa gannaaw Omar yow la Aliou ne ko ne maa an naa illaa rajulun mina muslimina man kenn laa rek ci jullit ñi kon gis nga Aliou mi nga xam ne yonentu wax na ne man maay njéendeel xam-xam Aliou mooy buntu ba moom itam seede na fii ne Babacar moo gën ci nit ñi gannaawam Omar mooy ci gën nañ gënantee daal noonu lañ toppalantee ah, Seydina Babacar Siddiq radiyallahu anhu wax na ne amut yonent moo wax ne amut eh, hadis bii Babacar moo ko solo Babacar moo wax ne ma min abdin muminin ni bu samban fa yatawadda fa yuxsinu tuxura suma yusli rakaatini fa yastaxfirullaha taala ila xafarallahu lahu mu ne amul benn jàpp boo xam ne dana def bàkkaat jàpp njàpp lu rafet julli ñaari rakka njàpp lu rafet Baay Seex Umar Ture radiyallahu anhu daan na wax ne mooy njàpp la borom risaala jàngale mu julli ñaari rakk balu yàlla lu yàlla baal na ko adi adi hadis boobu Aliyu nee na ci Babacar laa ko déggee ba ma ko déggee gëm naa ko waaye kurut Babacar su ma déggee ci moom wax dama koy giñloo bu ne yonentoo ko wax danaa ko giñloo bu ne bu giñee ne yonentoo ko wax rek danaa ko nangu waaye kurut kooku nag duma ma ko Babacar moom waxam dama ko dégg rek dal di ko gëm Seydina Babacar yàlla may na ko li jafee baayam aboo ko xaafata mi ko jut saxaaba la gëm na yonent Babacar ci boppam saxaaba la gëm na yonent doomi Babacar bu ñu wax Abdourahman saxaaba la gëm na yonent doomi euh, sëtam bu ñu wax Muhammad gëm na yonent xam nga tey sa baay nekk saxaaba nga nekk saxaaba sa doom nekk saxaaba sa sët nekk saxaaba xam nga loolu yombut boo seetee rek tey mag ñi àndoon ak baay seen doom yi gis nañ baay eh, ñenn ci seen sër yi gis nañ baay waaye ñoom seen sër yi ñoom eh, Mamat mii Cheikh Tidiane mii eh, gawuma gis nañ baay seen yaay yi gis nañ baay waaye ñoom gawuma gis nañ baay waaye wóor na ma seen doom yi gisuñ baay kon nag mu mel ni tey doomi Cheikh Tidiane mii bu gisoon baay mooy li Babacar xam ñu ko doon ñu ne euh, ñu ne gis na Baye Safi Touré gis na baay ànd na jàpp na ci moom Cheikh Tidiane gis na Baye jàpp na ci moom doomi Cheikh gis na Baye jàpp na ci moom lii yàlla may na ko Seydina Babacar ci saaba yi moom kenn la ko may loolu nga ne la Seydina Babacar Siddiq radiyallahu anhu jëfam yi gën a màgg mooy jiitu gi lislaam gàddaay na ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Babacar juróom-ñaari jaam yoo xam ne lu mburu di daj ci taxal xéeféer yi def leen leen ko baabakar moo leen jënd ci alalam goreel leen ngir yàlla Bilaal ibnu Abi Rabah ci la bokk mbugal mu nekk Umayyata ibnu Xalaf doomi xaram ji def na ko ko waaw lu nekk def na ko ko waaye eh, mu ngi naan ahad ahadun rek Babacar moo ko jënd goreel ko na ko demal ahad fu la neex Amir ibnu Fuhayrata Babacar moo ko jënd gorel ko Sanira Babacar moo ko jënd gorel ko Nahida Babacar moo ko jënd gorel ko ak doomam jaariyatu bani mu amal Babacar moo ko jënd gorel ko Umu Ubays Babacar moo ko jënd gorel ko loolu ci jëfi Babacar yu rëy la waaye Babacar gannaaw bi yonentu génne àddina gaa yi murtadoon ne duñ joxe asaka Babacar moo takku xeex ak ñoom musaylimatul matul kasab balen jiite won ci lañ ko ray ki ko ray moy wax si bi ah, ñom Xaalid ibnu Walid motax wax si daan na wax ne bima de hefer bakkan bi gëna tedd ci l'islam moy hamsatu mako ray waye bima de julitam bakkan bi gëna bon muy dégg nga musaylimatul matul kasab mako ray bi gaay murtade babakar ne ben burtu buñ doon jox yonentu kuma ko xañ dara yow mbotak xare omar nako a babka Babacar de dafa waxoon ne umirtu an uqatila nasa hatta yaqulu la ilaha illa allah faman qala la ilaha allah asama minni malu maluhu maluhu wa nafsuhu illa bi haqqihi wa hisabihi ala allah muneko omar omar nako babka Babacar dafa waxoon ne digal nañ ma makka xek nit ñi bañ wax la ilaha allah ku wax la ilaha allah mucc na ci man alala mucc na ba bakkana mucc na lu may ci xaqi ci lu may ci àqi lislaam xisaabam nag yàlla la war Babacar na ko ku tàqali julli ak asaka danaa ko danaa xeex moom Omar sori ma ba nga de ba nga de mbëru ngay jullit gën a ragal loolu xanaa xamale ne illaa bi xàq xii asaka xàq xalal la gannaaw gi Omar mu ne bi ma gisee Babacar dogu ca laa xam ne Babacar mii lim dogu dëgg la ndax am na ci nit ñi ñoo xam ne luñ dogu rek loolu dëgg la ci leen takk xare mooy xarbul yamaama boobu asafan lu bari ci saaba yi foofu lañ daal ci ñu wattoon alquran gannaaw gi moo sabab ñi boole alquran Ababacar Sadiq ku dëdd woon àddina lu mu bëri bëri woon xalal gis nga Babacar bi mu dee doon nuñ ko dërëm doon nuñ ko dinaar dara dara amut ko bi may bëgg dee dafa wax na ko gilam gii ma daan ratt daan ki dund baytul maala ko moom bagaan bi daan yekk baytul maala ko moom mbàjj gi ma doon sangoo baytul maala ko moom soo paree su ma dee dellul ma yépp bi Babacar dee eh, nday Aysa jël yoolu yëpp dem yët ko Omar ibnu Xattab radiyallahu anhu bi mu ko yéete Omar Omar ne ah man jaa ba'daka Babacar yàlla la yàlla gërëm ku ñëw sa gannaaw di sonn na waaw moom moo ñëw gannaaw Babacar waaye gis nga Babacar dëddu xëy na ngoog sàmm woon lool dëddu xëy lool waaw bi mu mm, euh, amee xilaafa bi euh, dafa daan dem di liggéey di dund ci loxoom nanguwul dund ci baytil maal moom kooku nde moomu nekk ku dëddu àddina daan dund di lekk euh, moom am na sax benn jaa benn jaamam boo xam ne dafa daan liggéey yi da indi mii ci dund benn bis nag eh, jaam bi dem xam naa bi demee di bu xaaba bu xaabawu xam naa am ku ko wax soxla mu ne ko ah man de ci jaay lii dafa am jox mooma weexal lii mooma weexal lii eh, Babacar na ko ah, mu ne ko waaw Babacar fekk la mu lekkoon mu jël baaraamam looju ko wacc ko ba mu set wécc waaw pour rek Eh, dawru dagaru Babacar moomu mi ngi génn àddina di sëbati ci weeru jumaada awal jumaada awal boo ne rabion awal mooy gàmmo rabion saani mooy rakki gàmmo jumaada awal mooy rakkaatu gàmmo ci la génn àddina ci atam fukk ak ñett ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Babacar dund na juróom benn fukki at ak ñett yal na yàlla gërëm ko